jëwriñ gi ñu dénk wàllum dem beeg dikk bi jël dogal ngir dakkal bépp texe bi ñu amaloon ci woto yi ngir ñu yab ba fees lu nu mel dawal ko tu ndaamaari di ko lu lool. kontaan rek kontaan rek vraiment ñu kontaan ci loolu bu baax baax ah, loolu lii nag ah, baax na trop wax dëgg yàlla ñu kontaan nañ ci vraiment. yab eh, trois personnes ci ginnaaw. temps yi moom vraiment sant nañ yàlla quoi parce que ci ñëpp la métti woon. xanaa métti woon rek. wax dëgg yàlla moom fu mu nii moom suñu ko defee pour ñu am euh, trois personnes ci ginnaaw ak benn ci kanam suñ ko defee dinañu arrangé loolu ñun tamit wax dëgg yàlla feebar moom yàlla mu yàlla mu jóge fii daa feebar moom métti na trop métti na ci bépp nit amul ko am xaalis amul ko amul xaalis ñëpp métti ci ñoom. waaw ah ni ñu kiiwee moom nombre bi moom baax na quoi. lu ni mel indi woon ay jafe-jafe ci seenub liggéey ndax clients yi d'accord wuñu benn yoon li tax ñu yokkoon paas yi. waaw avant deux personnes lañ doon yëpp xam nga loolu indi ñu coow bu dul jeex parce que comme li ma la wax rek clients yi dañ doon yebam moom ba fi ngay wàccee ne ko cent cinquante bi mu lànk ne cent franc laay fay loolu indi eh, coow suñu diggante chaque instant doo am weccet ñu jëlay doo fi fukki pour nga delloo ko fukki mooy problème bi doo ko am léegi da nga ciy mujjee bàyyi mu mu fukki dërëm bi loolu moo doon indi coowul chaque instant ñun ak suñu clients yi xam nga mais nag bu ñu delloo yàpp noonu loolu baax na ci ñun loolu loolu loolu loolu lañ doon ut. xoolee nag tamit day métti si ñun mais tamit soo xoolee tamit day métti si clients yi ndax client am na yoo ne tey par exemple ñu léegi. Euh, na ngeen jël euh, ñaari ci euh, ci ginnaaw ak benn ci kanam léegi nag place bi passe bi cent cent franc la woon njëkk ba léegi nag passe bi léegi cent cinquante lañ ko def léegi suñ ko defee cent cinquante trois yi nga kese ngay am clients yi dañ koy jooy ba sonn clients yi ci boppam client bu dugg ci biir oto bi da ngay dégg mu ne eh, passe bi wax dëgg yàlla métti na mais nag ñun tamit mënuñ ci dara daa soo xoolee yow bi ngay oto jàmbur nga yor nga war a werte nga war a jënd war a am loo yóbbu sa kër sa njaboot comprendre soo ko deful tamit wax dëgg yàlla nañ ko quoi parce que tam client yi sonoon nañ ci benn instant wax dëgg neex yàlla da nga fi doon gis rang bi air bi da doon bëri. parce que trois personnes yi euh, lañ doon jël du len arranger dañ koy rafetlu rek parce que trois yi mom loolu mom souvent dañuy am ak problème client yi quoi manam ñi dañuy wax dañuy yok pass wala ñu am ay problème wéccet ñenn si ñom di wax bi lay dogal terewul client yi dañuy wara a sen masque. sama auto mom personnellement do yëg ci max man avant tout damay xol la amna max day yëgal amoo waaw man Omar waaw sama oto moom noonu la waaw. ba léegi nag nañu moytu nag comme ça souvent ñu respecté lii rek nañu ko respecté xam nga. Mhm. ñu ñaan yàlla yàlla nañ yàlla musal feebar bi rek. jël sa mesure rek sol sa masque ak sa zel mu jeex waaw. mbas mii di Covid 19 laal secteur yu bari fii ci Sénégal loolu tax dawalkatu kalandoo yi di wax nguur gi mu gestu leen. waaw feebar bi métti na trop métti na ci ñun kalandoo yi surtout ñun kalandoo yi ñun vraiment ñu dañoo sonn moom ñun. wax dëgg yàlla ñu doonoo sonn yow yaa ma gën a xam gars yi fii dañ lay arrêté yoroo kayit xam nga lu ñu leen malipiyee xam nga ñun daal ñu ngi ñaan gouvernement bi ñun kalandoo yi ñu teg ñu foo xam ne ñun tamit dinañ mën a liggéey liggéey firi quoi xam nga ndaxte comme comme taskiment yi xam taskiment yi am nañu lépp nañ droit dañ dañuy def sans problème mais ñun ñi moo fi daw daja daja daja gaay xam nga ñu seeral lekk sa nguuru Sénégal taxaw temm ngir xeex mbas mi di Covid 19 wante ci ay anam yoo xam ne suñu économie du ci na sax ba faw looloo tax jëwriñ gi ñu dénk wàllum transport dakkal tere bi ñu doon tere oto yi ñu yab ba fees. wante bi la dogal terewul ñuy wax askan wi ñu takk seeni mask ndax feebar bi mu ngi fi ba léegi.